sëriñ Mayacine Diop sëriñ Mayacine Diop mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1878 ci dëkk bu ñuy wax nag Guy Jama Diop Guy Jama jóob nag mi ngi ci wetu dëkk bi nag di Ndoyeen ci département nag bu Kébémer ci dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu soxna Awa Ndiaye Dieng ak sëriñ Ale Fari Diop moom sëriñ Mayacine Diop nag am na nag ñu mu bokkal soxna Awa Ndiaye Dieng mii ak sëriñ Ale Fari Diop mii ñu mën cee ràññee nag sëriñ Makhtar Awa Diop ibnu soxna Awa Ndiaye Dieng ibnu sëriñ Ale Fari Diop sëriñ Massoose Diop ibnu soxna Awa Njaay Jeng ibnu sëriñ aale fari Diop sëriñ Moor Awa Diop ibnu soxna Awa Njaay Jeng ibnu sëriñ aale fari Diop soxna Mareema aale Diop bintu soxna Awa Njaay Jeng bintu sëriñ aale fari Diop ak moom sëriñ ma Yaasin Diop ibnu soxna Awa Njaay Jeng ibnu sëriñ aale fari Diop ñeent nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom ngir xamali leen nag njaboot gi mu bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndayam ji nag di sëriñ Maxtaar Awa Diop ab xalifaam nag mooy sëriñ Cheikh Mati Diop sëriñ ma soose Diop ab xalifaam jamono jii nag mooy ab sëtam nag buñ ko fayee di sëriñ ma soose Diop jigéenam bi nag di soxna Mariama Aale Diop bi mu matee dem kër sëriñ ma Samba Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ma Samba njaay nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Góora Ndiaye ak soxna Màggat Ndiaye doomu ndayam ji nag di sëriñ Mor Awa Diop moo meññ woon nag ku ñuy wax sëriñ ma Yaasin Diop di kim fayee nag waajuram ak ku ñuy wax soxna Fari Ndiaye Diop jamono ji nag ku ñuy wax sëriñ Moustapha Diop nag mooy ab sëtam mu bokk Mor Awa Diop moom sëriñ ma Yaasin Diop mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ ale fari Diop nag moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk bii nag mu feeñe jamono di guy jama Diop ginnaaw bu mu dalee alxuraanul karim nag ci loxoy waajuróom nag sëriñ aale fari Diop mii ginnaaw bi nag waajuram da koo jël yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag njaayeen tund jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ ma Masamba Njaay sëriñ Masamba Njaay mi nag moo wéel nag am njàngum alxuraanam moom sëriñ ma Yaasin Diop mii ba mu mokkal alxuraanul karim itam nag lii di xam-xam mu jógewaat nag ci loxoy sëriñ Masamba Njaay ci dëkk bii nag di njaayeen tund delsiwaat nag ci dëkk bii mu feeño jamono nag di guy jama jóopa ci loxoy magam nag sëriñ ma soose jóopa ginnaaw bu ko sëriñ ma soose jóob nag saytoo nag am njàngam la jógewaat nag ci loxoy magam nag ci dëkk bii nag mu feeño jamono dem nag ci kër sëriñ ma ñaaw sill wéyal fa nag njàngum xam-xamam bi muy dem nag ci kër sëriñ ma ñaaw sill am na nag mbooloo nag mu ko booleeloon ngir nag ñuy toppatoo nag doomu sëriñ aala jóob mii am njàngam ñu ko booleeloon ñu ngeen ca ràññee nag sëriñ Mandoumbe Diop sëriñ Balla Fall Diop sëriñ Tew Mour Faati Dia sëriñ ma Yaasin Faati Dem sëriñ moor Dieng Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ginnaaw ba mu nekkee foofu nag ab diir la fa bàyyikoo nag dem nag ci dëkk bii nag di na Sill ci sëriñ na Sill ba tey itam nag mu àndoon nag mbooloo mii nag ñu leen tuddaloon ba mu fa nekkee ab diir nag la bàyyikoo waat na Sill demaat nag ci kër sëriñ ma ñaaw Sill mii bi mu demee nag ci kër sëriñ ma ñaaw Sill la fa dajeeg maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke Mbàkke ndaamal daaru nag dafaa ñëwoon nag doon ziyaare si nag sëriñ ma ñaaw sill mi biñ dajee foofu nag la nuyoonteeg maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sàkku itam nag ci sëriñ ma ñaaw sill di ko xamal ne daal dégg na ne nag maam Cerno nag day a dem nag gànnaar mu bëggoon a ànd ak moom nag dem gànnaar nag fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul ginnaaw bu ko sëriñ ma ñaaw sill nag xamalee nag maam Cerno maam nag doon na ko xamal ne su amee aw waruwaay daal mën naa ñëw nag ñu dem foofu nag la maam Cerno nag jógee dem nag gànnaar mbooloo mi sëriñ ma Yaasin Jóob nag jàng si mbooloo moom itam nag da leen a yeewiwaat wax leen nag ñu dem na xaar ko ci dëkk bii mu cosaanoo nag feeñe fa jamono di guy jama jóob daa di wax nag ki nga xam ne nii nag mooy sëriñ Moor Jeng Njaay na ko yow nag des fi su may dem gànnaar nag ñooy ànd ginnaaw bu maam Ceerno nag jógee nag ci kër sëriñ ma ñaaw sill mii la jël nag yoonu gannaar wi mu ànd ak nag sëriñ Maxtaar samba Jóob ànd ak itam nag sëriñ ma Yaasin Jóob mi ànd ak itam nag sëriñ Moor Jeng Njaay mi ànd ak itam nag ku ñuy wax nag sëriñ Saa Xewar Jóob ak sëriñ ma Njubbu Siise ak ku ñuy wax nag sëriñ ñeneen ak ñeneen nag ñu maam Thierno nag àndaloon bi ñu eggee gànnaar nag ba maam Thierno nag yëgal sëriñ Touba Seexul Xaddiim di ko wax ne nag ku ñuy wax nag sëriñ Mayaasin Jóob nag laa àndaloon sëriñ Touba Seexul Xaddiim itam nag sàkku woon na itam nag ci maam Thierno mu indil ko nag sëriñ Mayaasin Jóob mii ginnaaw bu ko Seexul Xaddiim téyee foofu nag ay fan la ko gërëm ñaanal ko itam nag wax ko ne na topp nag ci ginnaaw maam Thierno Ibrahima fa Mbàkke ndaamal daaru mii fas wi nga xam ne nii moom la waroon ak kaamilu bi mu yoroon nag ci la jébbuloo nag ci gànnaar nag di dellusiwaat Sénégal Seexul Xadiim nag da doon sàkku ci moom ngir mu doxee nag gànnaar nag ba Sénégal sëriñ Maxtaar Sàmba Jóob mi àndoon ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo xamal Seexul Xadiim na ne munta doxee gànnaar nag ba Sénégal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag doon xamal nag ma Yaasin Jóob mii sag doxee gànnaar nag ba réew ma mooy sag fajug nag moo tax nag sëriñ ma Yaasin Jóob doxe gànnaar nag ba Sénégal sëriñ Tuubaa nag Seexul Xadiim nag keroog mi ngi xamal nag sëriñ ma Yaasin Jóob boole gii ma la boolee nag Ceerno baadoo dellusiwaat nag di ma sonal bari na ñoo xam ne nii nag ma leen booleeg ceerno dañuy ñëwaat fii nag di ma ma yaasin jóob nag di xamal nag sëriñ tuubaa seexul xadim ne ko nag su ma la gisaatee maam ceerno moo sàkku nag ma gis la noonee ko sëriñ ma yaasin jóob waxe woon sëriñ tuubaa seexul xadim nag ca gànnaar noonu itam nag ni la ko wéelee ba bi muy gisaat sëriñ tuubaa seexul njaareem la mu àndoon ak maam ceerno nag dem ziyaare ji ginnaaw nag bu maam ceerno nag ziyaare seexul xadim nag ba noppi te suba nag la ko maam ceerno nag doon xamal ne man ngaa dem nag gis nag ku baax ki bi mu demee nag nuyu nag sëriñ tuubaa seexul xaddiim la ko seexul xaddiim nag di ko xamal ne daa mel na lag ma waxoon da yaa nga ca mu di ko xamal ne nag loolu nag ci lay wéy mu doxee nag ci réew moomu nag di gànnaar nag ba Sénégal bi mu ñëwee nag la fekk nag daaru marnaan nag maam Ceerno daaru marnaan googu nag la ko maam Ceerno nag tarbiya ci diirum nag ñetti at bi mu nekkee nag ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk bii nag di daaru marnaan mook Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ñoo bokk nag benn néeg nag bu ñuy fanaan kóllëre googu nag ñaari doomu Seexul Xaddiim yooyu itam nag sàmm nañ ko ba ci dëkk bii mu cosaanoo nag di guy jama jóopa ay yooni yooni yoon cheikh mamadul moustapha mbàkke ak cheikh mamadul faadal mbàkke kenn ku ne itam nag jox nga ab kaamilub alxuraan sëriñ ma yaasin jóopa ngir nag ak kóllëre kaamil boobu ko cheikh mamadul moustapha mbàkke jox ak cheikh mamadul faadal mbàkke kaamilu mag moom la ku fi toogal sëriñ ma yaasin jóob nag ci sa loxo nag lay nekk kaamil yooyu itam nag bi fi sëriñ ma yaasin jóob nag di nekk at mu jot itam nag daanañ ko wàcce ci dëkk boobu nag di taayif jóopa ba tax na nag wàcce nañ ko fa sax nag lu ëpp ñeen fukki yoon mu wéy nekk nag ci loxoy maam Cerno ci dëkk bi nag di daaru marnaan ba nim jote ngërëm nag ci loxoy maam Thierno mu dellu nag ci dëkk bii mu cosaanoo nag di guy jama mi nga xam ne nii nag ñoom la waxoon tim nag ñu demoon guy jama nag xaar ko ak ki nga xam ne nii nag moom la àndaloon dem gànnaar di sëriñ moor jeng njaay mii bi mu demee foofu na la sanc nag ak kër nekk fa ginnaaw bu mu fa nekkee ab biir nag la ànduwaat nag lu toll ak un kilomètre cinq cent ci suuf soosu nag di guy jama jóopa sanc fa nag ab dëkk wala nag sancoon fa nag ay daara tudde ko nag xaapu naaru bi ñuy wax nag suggu xaya ginnaaw nag bu ko maam Thierno nag gërëmee ak ku ñuy wax nag sëriñ Babacar Kouta ak ku ñuy wax nag sëriñ Moussa Bey ak ku ñuy wax nag sëriñ Modou Fati Bey ak ku ñuy wax nag sëriñ Makara Ndiaye ak sëriñ Makhtar Awa Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu jébbulu mu des nag ci toolam yooyu nag mu tudde xàpp di dëkk nag bu mu njëkk a sanc ci suuf soo soosu mu cosaanoo nag di guy jama ginnaaw bi nag la sanc nag ñaareelu dëkkam suuf si nag mi ngi ko jëlee ci ku ñuy wax nag sëriñ maxandoo Maxandooy dëkkoon nag ci dëkk bu ñuy wax nag tawa muy fukki kilomètre nag digganteem nag di ngeer fàkk sanc nag moom la tudde nag daarul xidmati nekk itam nag ci wetu sarsaar ak sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke ginnaaw bi nag la sancaat fu ñuy wax nag cunkóoli du suuf soo xam ne nii nag maam Cerno itam nag moo ko goroon lam fa sanc itam nag lu tudde woon nag cunkóoli Jóob ginnaaw bu mu jógee nag ci suuf soosu nag mu sancoon ci suuf si maam Cerno nag sancoon nag di cunkóoli te moom lam fa sancoon nag mu tudde ko cunkóoli Jóob ci la dem sanc nag jeneen suuf soo xam ne nii itam nag maam Cerno itam nag moo ko joxaatoon ci penkub daarul muxti di Taïf Jóob ci 1930 nag la ko sanc fa la nekk itam ba ni mu génnee àdduna bi mu matee jël soxna nag ñu boole ko soxna jayle béy mook soxna jayle béy nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag kam faye woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di sëriñ Ibrahima Diop sëriñ Ousseynou Diop sëriñ Alioune Diop di kiim faye nag waajuróom sëriñ Moustapha Diop soxna Faati Mbàkke Diop njaboot googu nag la am ak soxna jayle béy ñaari doomi soxna jayle béy yi di sëriñ Ousseynou Diop ak sëriñ Alioune Diop ñoom ñaar nag ku ne nag ab seex nga kenn beneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna Yaasin Ndooy mook soxna Yaasin Ndooy tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee nag wa di soxna jaara ñu ko doon wooye nag soxna Busa Jóob soxna Musli Jóob Sëriñ Cheikh Anta Jóob yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Awa na soxna suñuy wax na soxna Faati Jóob nag mu mu ndaw nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faaloo Jóob soxna Ami Jóob yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna faa géey jóob mook soxna faa géey jóob itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee na soxna sooda jóob soxna jeng jóob dikkim fayee nag waajuróomum wa soxna awa njaay jeng ak sëriñ maam balla jóob yoroon na nag soxna suñuy wax nag soxna kumba amar amuñu nag ak njaboota yoroon na soxna suñuy wax nag soxna xadi jóob moom meññ nag soxna moomi jóob soxna yii nag la dëkkoo woon itam nag njaboot yii nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yooyu mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna faati mbàkke jóob bi mu matee dem kër sëriñ mbàkke jeng nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ mbàkke Dieng nag am nañ benn bant muy soxna Mariama Dieng ginnaaw bu soxna Faati Mbàkke Jóob jógee nag ci loxo loxoy sëriñ mbakke Dieng lañ ko jox nag sëriñ Mbay Njaay sëriñ Mbay Njaay nag taalib yëpp sëriñ Abdul Xuddoos mbakke la mook sëriñ Mbay Njaay nag am nañ nag ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Ndey Njaay sëriñ Abdul Xuddoos Njaay soxna Mati Njaay doom ji nag di soxna Maam sa Jóob bi mu matee dem kër sëriñ Moor Asta Nguraloo nag lañ ko jébbaloon ci dëkk bii nag di jaxaaw waaye mook sëriñ Moor Asta Nguraloo nag amuñu nag ak njaboot ginnaaw nag bu soxna Busa Jóob jógee nag ci sëriñ Moor Asta Nguraloo lañ ko jox nag sëriñ El Hadji Jale Diop ci dëkk bii nag di yaama sukkuru mook sëriñ El Hadji sëriñ Jale Diop nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mbacke Diop soxna Waalo Diop sëriñ El Hadji Diop sëriñ Jili Diop ak soxna Maam bu sa Diop nag mu ndaw doom ji nag di soxna Momi Diop bi mu matee dem kër sëriñ Touba Diop nag bu sura nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Touba Diop bu sura nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna Musli Diop bi mu matee dem kër sëriñ El Hadji Jatara nag bawol nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Moustapha Jatara sëriñ Saam Jatara sëriñ Muntaqa Jatara ak soxna May Jatara doom ji nag di soxna Sooda Jóob bi mu matee dem kër sëriñ Moor Jeng Njaay di taalibeem bii mu àndaloon gànnaar la ko jébbaloon mook sëriñ Moor Jeng Njaay nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Moustapha Njaay sëriñ Abdul Xuddoos Njaay doom ji nag di soxna Jeng Jóob bi mu matee dem kër sëriñ Abdou Badiane nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdul bajaan nag am nañ ak njaboota ñu man cee Modou Habib Badiane sëriñ Cheikh Badiane sëriñ Amsatu Badiane soxna Faati Badiane ak soxna May Badiane njaboot yi ñu leen tuddal na ñooy lenn tim nag ci sëti sëriñ bi mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Taïf Diop def nag lu am nag yit nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xoole nag Seexul Xaddim bokki tim nag ci jàmbaar yi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru yi mu nekkoon itim nag ku maam Cerno itim nag bàyyi xel ndax Seexul Xaddim moo ko booleeg maam Cerno ci réew nag di gànnaar maam Cerno tarbiya ci dëkk bi itam nag di daaru ko jox ngërëm maam Thierno na ko ñaari yoon suufa ci suuf si nag di daarul moo xam nag ci si nag di cunkóoli wala dëkkam bii nag mu tudde nag Taïf Diop ci dëkkum maam Thierno itam nag lañ ko denc nag ginnaaw bu mu génnee àdduna tudde na maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom tudde na itam nag lenn itam nag ci doomi maam Thierno yi nag doom doomu maam Thierno itam nag moo ko jullee itam nag di sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke njabootam gépp itam nag ci loxoy maam Thierno itam nag lañ wéy des ci bay jàng ak jàngale nag ci la sax ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1950 mu ànd ak nag ay góor yàlla yoo xam ne nii nag lépp loo xam ne nii nag def na ko ñoom nag la ko àndaloon doon liggéey nag di it maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke Ndaamal Daaru ci góor yàlla yooyu nag ñu man cee ràññee ñim àndaloon nag di sanc nag dëkkam boobu nag di Taïf Diop sëriñ Ibrahima Bey sëriñ Saliou Bey sëriñ Thierno Anta Diop ak ku ñuy wax sëriñ Atou Diop sëriñ aatu Diop mi nag moom meññi nag sëriñ Soye bu Diop nag bi nekk nag rajo Daaru Muxti FM ñeneen ak ñeneen mu wéy des nag ci dëkk boobu nag mu mujjee sanc nag di taayif Jóob fob nag yeneen dëkk yim sancoon nag jox leen nag ay taalibeem nag yenn itim nag mu jox leen nag ay doomi baayam ba tax na nag mbooleem dëkk bu mu sanc nag mi ngi dund nag ba nëgëni taayif Jóob googu nag fa la génnee àdduna képp ku toog itim nag xalifaam yaay géré nag mbooleem dëkk yi nga xam ne nii nag moom moo leen sancoon bëgg sëriñ Tuubaa ak doyloo maam Ceerno nag ci la sax ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1950 sëriñ Mayaasin Jóob nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar dëkk boobu nag mu mujjee sanc tudde woon ko nag Taïf Diop nekk itam nag ci wetu dëkku Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bii ñu tudde nag Touba Belal ci dëkk boobu nag la génnee àdduna ci bisub ajjuma fukki fan ak juróom benn nag ci weeru tabaski ci atum 1369 nag ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom benn nag ci weeru tabaski ci atum 1369 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 29 septembre 1950 vendredi 29 septembre 1950 ñu jëlee ko nag ci dëkk boobu nag di Taïf Diop doomu ka mu yaakaaroon di maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru di sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ci dëkk bii nag di daarul muxti sëriñ Modou Awa Balla Mbacke moo sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke ibnu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ngir mu jullee nag taalibeb maam Thierno bii di sëriñ Mayacine Diop ñu denc ko nag ci armeel yi daaru muxti yi soo delloo nag ci way yii ko sëtam way di sëriñ Seexuna Diop ibnu sëriñ Moustapha Diop ibnu sëriñ Mayacine Diop mag ñuy wax nag tolluwaayu maamam taxawaayu maamam jébbalu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dem gànnaar nag gu mu dem gànnaar àndoon ak ki ko seexul xaddim booleel di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru fas yu mu waroon bi mu demee gànnaar nag mu jébbaloo kook seexul xaddim topp gum toppoon nag ci ginnaaw maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru léppam nag gu mu joxoon maam Cerno sàmm nag gum doon sàmm nag lislaam ji yar nag gum doon yar nag taalibe yi ko seexul xaddim nag booleeloon dëkk yi nga xam ne nii daal sanc na moom sëriñ Moustapha Diop moom sëriñ Mayacine Diop nag di xamal ci ay way nag yum ko defal ñu teewlu ko bismillahi rrafi'i ssamaa'i albaasiti al ardi wa rabbi lmaa'i alhamdulillahi alazimi almurtaji fi kulli xaajatin lahu xaajaati laa artaji fi xaajatin illa liman yaclamu maa yakunu fi kulli zaman salla wa sallama ala shafiicina muhammadin xayri nabiyina fina wa aalihi almukarramina almushrifin wa saxbihi المخلصين الخاشعين صرفت همتي ila سان تبشر خادم رسول الله كي borom njariñ tey ak ëllëg moo ñuy ramm lii maa ko wax ramm gu teew gi sax lu feeñ la mët la wax képp ku am xel danga xam ne lii ñu xam kenn liggéeyu ko kudul cheikhul xadim loolee ñu xam nag jërta wax ndax gis ngeen ci seeni mbir lu ngeen jëful kon xam ngeen sant ko war na képp kuy jullit te sax ku di murit yaay ko ca raw moo tax ma wax ci saa gimiñ jaajëfa xaadimul rasuul na ñépp wax lii ndaxamit yàlla na lool kii moo defar gaaya defar gu yéemu lool ba ku leen liggéeyal xam ngërëm te xam yool yàlla gërëm na leen ngërëm lu sell yoneen ba sant leen ba tax mu fell ngëneel ya ak mayam ya jébbal leen ko ñuy fal di folli ba ëllëg gëm leen ko soos naa daa sos xalima ngir tagg ca kenn ku mag ku sellu lool te nëbbu ca yàlla gërëm na ko yoneen ba xam na ko bàmba gërëm na ko ñu baax ña fonk ko turam wa moo topp ci saaru faatiri suuratu baqara waññal ba faatiri ndegam xamoo ko déglu ma ma wax la ko seexi mayaasin lañ koy wax xam ko xaadim rasuul jox na ko ay ngëneel yu rëy tey ak ëllëg maa la ko wax lii moo rëy bàmba gërëm na ko ngërëm lu rëy ba tax mu fab ko jébbal ceerno lii moo mata wax ceerno birahim kili Jolof ak waa Mbàkke Bamba ko yar ku Bamba yar doo manki Seex Bamba ne maam na mooy sama ndeyjoor Cernooy boroom ngëneel yi ndax Bamba du wor Seexi Mayaasin sama waa ji may way noo ko seexal cëy li mu xam ci may moo ànd ak Cerno Birahim mbakke dem gànnaar siyaare Xaadim Mbàkke aw fas wu baax la Cerno jox Seex Bamba hadiyatul ilaahi mooy rakki Bamba Seexi Mayaasin sunu waaju sell ja fas wom waroon la daldi jox Seex Bamba def ko hadiya xujjatul ilahi war rasul kii mooy murid kii moo gëm xaadim rasul seex bamba fapas wa ko seex rafaa di jox la muy baax baax giñ naa ne ab naar la ko jox seexi mayaasin fas wa mu jox bamba seex bamba jox ko cernu may sàmmam ba seex bamba dal di woolu seex mayaasin mu dal di ñëw mu ne ko seex mayaasin man ngaa dox gànnaar ba réewum sénégal mu ne ko waaw waaw lu ñu man la ndem digal xaadim rasuul digal ko dal ne ko dox ko dëxal ko ca dëxal bu rëy ma wax ko dëxal ba moo di nee na ko boo ko doxee texee daal di texee yaa ku la yaakaar ngeen texe yéenu murit lii doy na ndam doy nag baax xam ngee rëyut ne kon danaa ci wax bu baax seexi mayaasin li mu xam dénk na ko xaadim rasuul yowmal qiyaam mu génne ko ragal ga yàlla it ëlëm na nit ña xamam ga yàlla ak fegoom nga yéemu na gërëm loo na yàlla yàlla gërëm na ko yonente baak seex bamba ñépp sant ko ceerno birahim rekki seexi bamba moo ko digal mu sanc taifam ga mu daal koy sanc di jaamu yàlla akay liggéey yoonu yàlla sama waa ji lu baax lu ne moom jëf na ko ci zaahir ak baatin fëxal te song ko midaayi gaa yu baax ya yépp am na ko rangoo di wéy fobal sa mbir jëbbal ko bañam ga àddina waral nëbboom ga ragal ga yàlla moo waral noppeem ga xalaat ga yàlla moo waral tiitam ga rëyu gëmam ga moo waral doyloom ga wegam ga yàlla moo waral yoggaay ba zikrul ilaahi moo xaroon deram ba néewug lekkam ga moo taxoon cëram ya ak jëmm ja tuuti ba feeñ fa doom ya ki nelaw yaa tax mu dëkk jaamu guddeeg bëccëg subaaki ngoon day jaamu seexi ma yaasin sunu waaja wàcc na tey ak ëllëg maa la ko wax moom àgg na gëmam nga seex bamba waral doy loom nga seex ibra faati sunu waaju màgg ja dégg ndigal gaa tax mu fonk cerno noor ak nawet lu ñëw mu jox ko cerno njaboot ga ak alal ja lépp jox na ko cerno birahim sunu maam ja gëm na ko ko bamba fay tey ak doo jeexal te bamba fay na ko sumun ba feeñul cerno birahim sunu waaja doole fàwwu ñu kañ ko njabootu cheikh bamba gi ñépp xam na ko waa kër boroom daaru ñu ñépp fuglu ko cheikh mayaasin li mu xam ciy daraja man lottu naa ci wax jaajëf sang ba taxawlu naa di sant cheikh bamba di sant cheikh ibra faati may sërdi ba dellu gërëm dongam ba ma mayaasin ak mustapha may doomi ma mayaasin tàllal samay loxo di ñaan buur yàlla njéggal gu sax dak ci barke ndaama la allahu yàlla nag ñu jéggal bakaar yi ci zaahir ak baatin faral ñaawteef yi amina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 amalaataloon nañ ko beneen bis ci dëkk bi nag di Taïf Diop bis bi nag ñi ngi ko jàppoon ci fukki fan ñeent jàpp fukki fan ak juróom nag ci weeru janvier bu jot waaye ginnaaw bi itam nag bàyyi nañ ko bi sëriñ maam Balla nag toogee xalifa ñu koy jàpp nag léegi itam nag ci ndigalub xalifa sëriñ ma yaasin Diop moom saa bu ko jekkoo wax taalibe yi nag ñu màggalal sëriñ ma yaasin Diop ñuy ñaan ca ka jébbuloon ci cheikhul xadim ci réew mi nag di gànnaar cheikhul xadim boole woon kook maam Ceerno itam ci réew mi itam nag di gànnaar di sëriñ ma yaasin Diop yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram nag ci barkeem liitu jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay mbakke amiin